alxaq falxaqu walxaqa aqul asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen fàttali ni vendredi le premier decembre mooy procès oustaz Omar Sall ca tribunal bu Dakar salle une li ko dale huit kon mbokk yi yéen ñépp noo ngi leen di woo képp ko amul ngant ñëwal teew taxawu oustaz Omar Sall mii di sunu mbokk jullit noo ngi leen di woo ci dal noo ngi leen di woo ci yar noo ngi leen di woo ci teey ak wakkiirlu ci borom jaam yi yéen sabaab yi maa ngi leen di woo aduukum bul tiit bul ragal lu yàlla bëgg moom mooy am li yàlla namm moom mooy am moom mooy kiy faj aajo yi nen ko ñaan mu taxawu jaamam bii nu tee ci lu dut yoon fa tuubaa lil ghurabaa soo bëggee dund diine bëgg a dundal sunna mënul ñàkk moos nga nekk jàmbaar bul ragal mukk wéet wéetaay du dara bul ragal